bisimila xibaar yu bari la yéene kaay yittewoo ci àjjuma ak tey jii fukki fan ak juróom benn weeru août atum Sud Quotidien ne parfum wub jàmm mooy xeeñ diggante état bi ak presse yéene bi ne njiitu réew mi gannaaw journée sans presse bi sedeb sa tëgg woote na waxtaan un dialogue rénové la Bassirou Diomaye Faye wax jàpp na it saafara mënta jóge fudut ci waxtaan Sud Quotidien ne jamono jooja ministre de la communication Alioune Sall ma ngay lancé plateforme a opposition yéenekaay bi ne njiitu réew mi bëgguta doon ab va-t-en-guerre maanaam defantekat moo waral bi patron de presse yi tëggee journée sans presse mu woon leen ne dégg na leen woote waxtaan waxtaan woowa ci la bis bi le jour di wax ci xëtam gu njëkk ne jàmm ngay xeeñ diggante état beeg presse bi ndax Bassirou Diomaye Faye ba ñu tëggee journée sans presse mel na ni dégg na leen waxtaan woowa mu woote nag yéenekaay bi ne patron de presse yi ñenn ñi am nañ ca yaakaar waaye ñenn ñi xel mu teey lañ ci amee Senpix ca booba lépp yéenekaay di rafetlu taxawaayu président Bassirou Diomaye Faye ñu joxoñ l'oreille attentive la la njiitu réew mi nii mu doxalee ni la kilifa war a doxalee moom kilifa réew mi ca 24 heures ma ngay sàkku ñu doxal code de la presse loola bokk ci redressement secteur média maanaam jubbanti méccam tasum xabaar ci Sénégal booba jamono la ñu lii quotidien di yëgal ne jub jubal ak jubbanti ga ñu woote woon ma ngay torox ca boor yéenekaay bi ne intersyndical liggéeykat ya mooy weeje fi mu ne directeur général ba Waly Diouf Bodian di joxoñ ak a ñaawlu procédure passation bokk na ca la ko waral ab marché bu nu fa joxe it mu tàbbi ci loxoy conseil technique yéene cabinet jur na fa coow syndicaliste yay joxoñ violation code des marchés tribune ne bu weesoo violation code des marchés booba violé nañu itam délai passation marché rax ci dolli juróom-ñaar téeméeri nit ya doon liggéeyee ca port ñii di ay yaay ñii di ay papa ñeneen ñii di ay soutien de famille ñépp mu dàq leen journal bi tuddee loola lépp dëng-dëng wéng-wéngal bu Waly Diouf Bodian ca port teg ca kaw Waly Diouf Bodian ca port autonome bu Ndakaaru foo natt garaawaay ba weesu na ko yéenekaay bi ne syndicaliste yaa ngay ñaawlu violation bu ne fàng bu code des marchés ak a coowal marché booba tàbbi ci loxol benn conseil technique moo ko yëngal ca booba lépp yéenekaay Mamadou Lamine Diallo njiital tekki ma ngay gësam naan assemblée nationale bi dañu koo war tas ñu fekkati ko ca vox populi moom Mamadou Lamine Diallo mu naan dafa jot sëkk ñu tas assemblée nationale bi ngir askan bi mën a tabb ay député yu responsable yoo xam ne la ñuy def njariñal askan wi képp lañu cay xool député yoo xam ne daanu mën a toog déglu ab déclaration de politique générale buy indi rupture maanaam coppite ci réew mi l'info naan njiitu réew Bassirou Diomaye Faye moom tàmbali na rupture bi tàmbali na itam sakkanal alalu na territoire gëmu jiite woon yéene kaay bi jël na décret ko moom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ndax warta woon santaane ab contre vérification yor yor be samp wi léew laaj ci xëtam gu njëkk ne ndax jeexi jaax dafa am ci rapport bi ñu ko jox ñeel occupation irrégulière littoral maanaam suufus tefes bi ni ñu ko joxe yéene kaay liggéey ba nu ca def ba jébbal ko rapport xel daf caa teey ba yegg ci lool waral journal bi laaj ndax njiitu convocation yéenekaay biy wax li waral dëgg ñu libéré ko journal bi ne ndax enquêteurs yi danoo nekk di vérifier xabaar ma woon mën nañu koo convoqué waat à tout moment maanaam jamono ju ne takk der yi mën nañu koo yépp dañ ko koo xañ njiitu ma woon yéenekaay bi ne ña wattu kaaraangeem di sécurité ak ña mu doon jëflanteel ñépp la ñu nangu ca moom moom Macky loi d'amnistie bi mu fi tëgg bàyyi forum civil ak victime yaa ngay sàkk ñu abrogé ko ca vox populi Birahim Seck coordonnateur forum civil naan ak lu mën a xew ak lépp lu ca mën a tukkee yi nii njeexital ci wàllu yoon bi lépp loi moom dañ ko fee war a jële leeral li fi xewoon ba mu leer nañ ñu xam kana def lan ñañ ca war a daanit ñu daan leen l'observateur ca booba lépp loi d'amnistie la xëy yeggee ñu yéenee ñelooru woon ca jamonoy Macky Sall muy victime yi bëgg ñu abrogé booba lépp loi journal bi wax booba lépp abrogation fan la mën a yegg ak lan la mën a Ibrahima Diop le témoin moom naan pôle judiciaire juróom benn ca ñoom ñàkk seen bakkan ci saa si ñeneen ñett ñàkk seen bakkan ginnaaw loola ñeent ñu amee gaañu gaañu yu metti yéenekaay bi na ñu ca hôpital bu Jurbel ñaar ñeneen ñu ca hôpitalub Touba yéenekaay bi ne ñaari bébé di ay tuutànk yu àndoon ak seeni yaay mucc nañu ca boobaleb accident dara jotu leen wuteeg seeni wayjur ya tëdd l'hôpital tey ñu leen di faj njiital anaser naan accident yi moom li koy faj rek mooy teey daw ndànk rawati nag ci jamonoy màggal gi ñu ne màggal googa le témoin ne ARTP bugg ca benn bang bang ci wàllu communication di jokkoo gi dafa bëgg lépp baax résultat yu bon yi Benno Bokk Yaakaar génnee ci élection présidentielle bi point actu ne Abdoulaye Diouf Sarr a cay laaj communication gi nguur gi nar a def ci kilifteefam fi mu ne ci dëgg dong lay tegu enquête naan liy dëgg ci njëg yi ñu wàññi ceeb diwlin ak suukar journal bi ne mooy dara wàññeekuwut waaye sax contrôle daa amul ci marché bi yéenikaay bi ne ñaari weer gannaaw bi nguur gi jëleb dogal amul lenn loo xam ne jëfe nañu ko ci dogal yooye mu ñaar fukki fan ñeent weeru juin di wàññi njëg di dalal xeli ca boobalib yéenikaay naan njëg yi wàññeeku na sax lu fukk ak ñetti camion Sénégal ya fa tagoon libération waxtu woowa dugal ñu caisse de sécurité sociale nañu xaalis ba nu fa luubaloon fi ne yegg na ci ñaari milliards journal ba ne ndax gis nañu yeneen chèque yoo xam ne dañu ko jox holding ba mamaam Thierno Birahim Bob comptable Wiltor ba gannaaw gi mu doon comptable plateau doon contrôlé joxe nañu itam chèque ngir société promise ma nga xam ne bind ca caisse de sécurité sociale ay chèque Wiltor ak Plateau ñu des ca boobaleb yéenekaay bi ñu yëgal musiba mbàbb kumba ba xew ca cité Ousmane Ngom bu Thiès yéenekaay bi ne PS dafa agressé benn xale bu góor waa gox ba jàpp ko dóor ko ba noppi taal ko yéenekaay bi ne moom agresseur booba sax ba mu génnee kaso yàggut firnde gi mooy ma nga woon ak bracelet électronique am ba tey ñun fii la nuy yem tey ñaanal leen kenn la jàmm dig daje ëllëg incha allah